alaaji Amar ca Ndar boobu fii nee fii yaari jumaa moo fi nekk moo ko yetteel mooy jumaa joo xam ne ciment lañ ko liggéeyee jumaa yooyu ma lim nag am na ci yu xam ni banko ci doomu soxna autorisé ko fetalu ñaari ngémmañ moo ko jëkk am ci doomu soxna yi ne wax daal day am seede woo darma boobee woo woddu arme bi port de arme bi këyit bi waa këyit bi këyitu fital gi ne këyit baa ngi nii nee mu autorisé ko ne rab wu ko lëjal mu rey ko mooy yaari këyit yi daa këyit goo xam ne pour fital la utaal gëneen këyit goo xam am na autorisation rey rab bu ko la moo jëkk doomu nekk doomu soxna am oto ci réew mi ba ca suba sa bàyyi Modou Moustapha Mbacke soo jënd soo ko jënd oto ne teraangay diine sama baay maam Momar Talla Seck moo ko njëkk am ci réew mi nee mu dem Fuuta. tabax fa jumaay ciment. ca kër sëriñam. benn jumaa taxawagul. nee sama baay sëriñ Canaba. Momar Talla Seck. toogul woon ci am néeg. daf daa xëy. dem tool. ba wàcc jot ba wàcc mu ànd ak taalibe ñibbisi. nee muy nawetoo. fukki tool yoo xam ni day dem bay bële dem bay bële dem bay bële ba nawet du wàcc mu dajale alalam liggéey ca daf ni woon mboolem jumaa yi bu dul jumaa yi Madina sama jumaa ji moo ko gën a sell ndax suuf si ma ko bayee ci laa ko samp tool yi maam Momar Talla Seck daan bay tool bu ci ne. tool bu ci ne. daf kaa ngénte. tudd ko tudd ko. aw tur. fukki nee fukki tool yooyu. am na tool bu ñuy wax joxar bi. am na tool bu ñuy wax joxar bi. am na tool bu ñuy wax neexu leen. amin wa daa wex. moo tax mu tuddee leen noonu. am na tool bu ñuy wax. mbadet. toolu bàyyam toolu bàyyi ma ma nga ne xalifa bu fi toog yaa ko yilif ne mu dem gor cooti def ko nag toolu boppam bàyyi bar bar saak bar jaag saala joor moo ko may xurwa daa toog ci néegam ba yàgg moom bar jaag mu ni man daal damaa waaru. ñu ne ko lu la waar. mu ne xur dox sama digganteeg jànqeen. sama digganteeg jànqeen. bukki yi nekk ci. bukki di lekk jur gi. moo ma jaaxal. maam bànd ñang ni ko ah. boo ko joxoon sëriñ Thierno Momar Talla Seck jàmbaar ja dana ko toj mu ne ko bànd doxal loolu mu dikk nuyu sama baay. nee mu dikk nuyu maam Umar Talla. ne ko ne ko. barjaak barjaak. daa jaaxle ci xurum wii. daa jaaxle ci xurum wii. wii jur gi bukki yi nekk. bukki yi daal dañ cee nekk rek. di lekk jur gi di lekk jur gi. mu ne ko man aw may tool. tool yi fi ne. tool yi fi ne. saa bàyyi ko saa bàyyi maam Amary Ndak moo ko moom. su ma ma liggéey su ma ko joxee ma liggéey ko. ba ca déwén sa. nee ca déwén sa nag. mu yebal Baye Banda. mu yebal Baye Banda. ni ko soo demee. ni ko soo demee. tool boobee. tool ba ma doon wax. defal ma fa ab néeg. defal ma fa am néeg. mu dem defar néeg ba. mu dem defar néeg ba. séeréer sa jaar fa lakk ko. sa jaar fa lakk ko. mu dikk wax ko ko. mu dikk wax ko ko. mu ne ko def ko ñaari néeg. mu ne ko def ko ñaari néeg. te taal ngaañ ma ca diggante ba. te taal ngaañ ma ca diggante ba. kon duñ ko lakk. nee kon duñ ko lakk. góor dana defar ñaari nee mu gor defar ñaari néeg. daay taal ca ngànj ba taal ca am ngànj ci diggante ba ci diggante ba lëkkuñu ko kenn lëkku ko sama bàyyi nee na sama bàyyi sëñ cana ba Momar Talla Seck nee na néeg boobee néeg booba lépp lu ma doon laaj sama borom lépp lu ma doon laaj sama borom ca néeg ba la ma ko yàlla ca néeg ba ma ko yàlla nangule muy cóoti loolu mooy cóoti muy bay tooli ceeb bay ay tooli ceeb yu ñuy wax ngul ba yu ñuy wax ngulba. muy bay tooli dugub. muy bay tooli dugub. ca Gosaas. ca Gosaas. di bay ca cabe. di bay ca cabe. di bay ci canaba gii. di bay canaba gii toolu penku bi. di bay ndi tax gii ceeb. di bay ndi tax gii ceeb. fukki tool la boole woon. fukki tool la maam Momar Talla Seck boole woon. tool yooyu mooy jëwriñ ja. yëpp mooy jëwriñ ja. moo tax doomu soxna yi fi nekkoon. moo tax doomu soxna yi fi nekkoon. moo leen mënoon. moo leen mënoon. xanaa bu bu xanaa bu amul. bi alal xewee la. waaye monsieur le ministre Alioune Sarr sa yoon wii nee ñaan naa sama borom yàlla nekk sa ndimbalum yàlla ne président Moustapha Niass laneen la keroog bi ma déggee ñuy Moustapha Niass fekk na président Macky Sall ba déggoon nañu laani jàpp na ci giddug réew na ci giddug réew mi dana ci jot ne président Moustapha Niass politique na waaye politique ba yàqul ci doomu soxnaam dara tabaarakallaahu moo xam kilifay diine julli gi la wala kër làppe la wala kenn ku nekk fa nga jiite ci diine danga nga nekk ku ci nekk rek ñu la ci ndokkeel di nuyu ñëpp di leen ziar wala mu ngi ñaanal ñi nga xam ni dañu doon dem ci Touba di fekkee suñu maam Serigne Touba yàlla dogal ñu génn ci àddina ñi ci faatu ñëpp yàlla na sama boroom defal leen defal leen yiw defal leen jéggal mu ne ñi faatoowul tam ci yoon yi te génn àddina ak fu ñu mën a génnee àddina yàlla mi amee jéggal yàlla yàlla jéggal leen xaari leen aljanna sëriñ bi nee na moom day yéeneem mooy mbindeefu yàlla yëpp amul jullit amul chrétien amul ku mu doon waaye ku yàlla bind rek mu ne bu fekkonte ne day sama borom jox na ko ndigal yi bu ëllëgee yowmal qiyaam day ubbi buntu aljanna rek ñëpp dugg ñëpp daje fa ndax yërmande yàlla yaatoo na mu ne dafa am bis alaaji mën jegeen toog ci piliyaan bi xelam dem ci bés pénc ak mbiri bés pénc mu toog di xalaat ba yàgg muy ñaanal nit ña fa nekk ba yàgg mu ne ah man daal bu ëllëgee bu ma yàlla joxee ndigal man alaaji mën jegeen dinaa ubbe aljanna képp kuy mbindeef rek da tàbbi ca biir mu ne ci saa si laa ko wax ne ko yow day papa mu ne labbayka mu ne ko li ngay baax baax yépp bu ëllëgee di nga xam ni yàlla la gën a baax yow mu ne te yow mii day sa kàddu gi nga génne ñu xam la ci mbaax ak yiw ak jaamu yàlla ak nekk ci li nga war a nekk ëllëg yàlla mën naa dëgg ci sa kàddu gi jéggal jaam yépp mu ne loolu nag mooy suñu daje ci jotaay bii kenn ku nekk bi ngay ñëw am nga loo yaakaar fi nga yaakaar itam nii ko góor gi ñaanee woon yàlla na nga daje gi yaakaar jooju ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñu jotaay bii daal kenn ku nekk am na lu la yëkkati nga ñëw ñu bokk jotaay bi waaye waxtaanu famille la mu ne ndax jotaay bi daal ñi ko teewe ñépp suñuy doom ñoo ci nekk mu ne monsieur le ministre Alioune Sarr mu ne ñëwum fii ci kër gi mu ne politique indiwu ko de bi muy xaleel moo ko alxaaji Idrissa mii ñoo doon ànd mu ne lekk na ca rey suñu bàyyi alaaja mën njëgeen ba tàyyi fii ci gàmm bu mag gi mu ne looloo waral tam bi mu ñëwee sunu baay boolewaat ko alxaaji Idrissa ndax alxaaji Idrissa nag doom la ci xadara bi waaye doom bi am valeur la ndax soxna Zeyna bu njegéen moo jur alxaaji xalifa Gaye mu jur ko soxna Zeyna bu njegéen alaaji Ahmad mi mi ci dëkk bi mooy way juróom mu seen ànd nag dëpp xaleel ba nëgëni waaye mu ngi leen di seedeel ni ku am reconnaissance mu ne li ci am solo mooy li tax mu ne dafa am reconnaissance léegi ku am yeneen position ku am yeneen i ndomb sa xaritu démb yaag ña nga doon àndal ñépp teg nga leen fële mu ne waaye moom delluwul ginnaaw digganteem ak alxaaji Idrissa mi leen alaaji mën jegeen boole woon ñaanal te man lu ma wax rek yàlla tax ma wax ko te ku am kóllëre nag jàppal ku amul kóllëre teg ko nële ca wet matalul diggante te yàlla dana defit bu amul kóllëre lu metti lu nekk day daw du la jàppale Alioune Sarr nag looloo tax mu ñëw fi ngir bokk ak kër maamam jotaay yi bi ngeen bi monsieur le ministre di ñëw Augustin Tine def na ah, kilifa gi mu ngi ñëw nag da bëgg sax tàggoo waaye man tam kenn du ma def noonu man ko déet yow ci kër gi nga bokk sët nga fi yàlla boole na la fi toogal recevoir senuy gan mu ne kon papa maa ngi def loola papa noonu la alhamdulilahi rabbil alamin mu ne monsieur le ministre d' état Augustin bu ko yàlla ëndee muy ñëw fii moom itam ba muy ñëw fii mu ne fële monsieur Abdou Mbow doog foofu la daan toog benn chaise moo fa nekkoon muy ñëw di seet si maamam seet suñu baay bu ñëwee nuyu ko ne ko hmm, papa na nga ñu ñaanal sax ci loolu rek delluwul ginnaaw ba fii ñu toog mu ne moom tam ku am reconnaissance te man fii ku fi teg sa tànk teg ci sa tànk rek bu ma toogee toog ak sama njaboot danaa xam ka ko topp ak ka toppul sa kàddu gu njëkk yàlla moom defal na ko mu amul la rek suñu diggante nag ba mu faloo xanaa yaayam waaye ba ko yàlla defee ministre sama néegu zinc yële ca kër gële fa la ñëw ne ma papa alhamdulilahi rabbil alamin ma fal nañ ma ministre yàlla def na def nañ ma ministre ma ne ko jub googa bul jóge ca njub ga reconnaissance boobu bul ca jóge chaise la daan toog fële ci baay moom la continuer ba fii mu toog nii sama diggante ak moom nag doxeeku ci doxinu ministre kilifteef rek bàyyi te ku ma jàppee loolu ma jàppee la doom bu ko yàlla defee bi muy ñëw mu ànd ak suñu njaboot yépp ñëw fi mu ngi sant yàlla nag di ko gërëm moom yàlla di ko ñaanal moom monsieur le ministre lii mu ñaanlu kuy autorité war nga ko wax ñaan ñaanlu ko sunu baay walla jëmban jigéen daf daan wax ni buur bu ko contre mu ne buur bul ko contre leen ko ba tey. ah kay jigéen. Ah, mu ne ñun nag ni ñu déggee waxam jooju mooy jamono ju metti ji kuy kilifa toroxal kuy kilifa lu ñaaw doo xam lu baax la muy def xamoo lu baax la muy def lu bon la rek ngay bon rek ngay jéem a gis moo tax jamono jaa ngi moo tax jamono jaa ngi ne metti bay bëgg a dee ku ne mettiwul ku ne mettiwul dangay ngay nax sa bopp ñi war a ndax ñi wara a topp kilifa yi toppeetuñu waaye nag alhamdulilah. waaye alhamdulilah rabbil alamin. bi ñu amee conseil bu mel ni suñu wayjur alaaji ëmmal njëgën. mu ne lépp luy lu baax na ngeen ko def ci dëkk bi. da wax naan man dëkk wax ni man alaaji ëmmal njëgën dëkk bii. man alaaji ëmmal njëgën. bu doon tàkk damay doon doom maag sama njaboot ci biir dëkk bi. kon nag dëkk bi ku fi xalaat def fi lu rafet. lépp luy lu ñaaw waroo ko def luy gàkkal dëkk bi waroo ko def luy gàkkal njaboot gi waroo ko def ñun day ndigal yooyu conduite boobu la am ci suñu baay mu jële ko ci baayam mu jële ko ci baayam kenn duñu ci jële na du ñu ràllu kenn na waaye dëgg rek la ñuy wax ànd bu rafet lañuy ñuy digle nekk ca ku toog teral nu tam daañ ko wax jaam rek jaam rek moom ngay defal teraanga moom ngay defal teraanga mu fàtte fa bala fa ñun du ñu doon lu dul ay gor ñun sunu ruux yi yàlla lañ ko dénk ndax moo ci mën dara wërsëg wi ñu yàllay teralee tam yàlla rek lañ koy séentoo teguñu ko ci benn nit alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag ku ñu jox cër respecté ñu ak suñu place su baay bii duñ ci waxal kenn loo deful ñoo bañ yàlla moo nu yore. kon nag dee ay ndaw ay doom. buñ dee ay ndaw ngeen di ay doom. fonk sunu baay. fonk di ko teral mu jige fi. ngeen continuer ko. xeeboo leen ñun. lu nu man danañ leen ko ñaanal. ñun. du nu wër nag di fëgg benn bureau. kenn. musuma ci fëgg bureau kenn. sama doom yaa ngi nii te loolu yàlla séede na ko ak yonent bi doyloo nañu suñu baay lim ñu jox mu ne li may néew doole yépp ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul ma jël sama sànqal dal di laax lekk cere mu ne waaw waaw yàlla moom may na ma loolu alhamdulilah sunu bàyyi yar nanu ci loolu sunu maam def na ci loolu kon nag koo xam ne yaa ngi fonk kër njaboot tuuti di ku fonk kër gi jàppale nu ci sunu njaboot gi yëgal ni man nga jàppale man nga fonk te loolu ñu ngi koy sante yàlla alhamdulilahi rabbil alamin alhaaji Idris ñu ngi kontaan bu baax ci ki nga àndal te sama baay boole woon leen monsieur le ministre ku gis tam sunu baay ñu boole waaye dafa fonk sunu baay jàpp sunu baay danaa la jàpp ngir yàlla ngir sama wéyju li ci des nag mooy docteur Pape Amadou Ndiaye docteur Ndiaye monsieur le ministre sëriñ bi nee mu ngi lay sant man du ma ignoré de man loo def ren ba déwén sama bopp sii maa ngi ko ci takk de mu ne dëkk bi def nga fi lu baax mu ne fii mbalit mi fi daan nekk yépp ak sa kàttan defoon nga ne xaw ma ko defoon nga ni xaw ma ko waaye waaye alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ñi nga àndal monsieur le ministre ay xale yu baax lañ mu ne Abdou Mbow nag président doomam alxaaji Fall njigéen ñu gën ko xam ci train moom la doon àndal moom sama doom la loolu laa ko jàppee ku bëgg sa doom ànd ak moom nga bëgg ko ku fonk sa